na ni eh, Thiané Diagne Thiané Diagne Sénégal yëpp respecté ko ci eh, parcours ci am jom doon jigéen euh, mosul xaar kenn euh, tey jii euh, bu ñuy wax lépp lu jëm ci wàllu sañse boo bëggee daan par exemple chez les femmes boo demul ci caane jaañ da ngay doon sax manquant ci xew yi loolu defe naa suñu borom may na ko ko te jomam moo tax comme on dit souvent liggéeyu ndey dina taxaw dëgg la ci yenn yi waaye jom ji nga sàlloo itam daf lay wallu ci kaw nga doxee ko alors Thiané Diagne moo ñu rejoindre léegi man dama koy fekki ci beneen plateau bi na ñu ngi lay nuyu bu baax a ah, kontaan eh, ci sa teewaay tey ci yeewu la yeewu leen xam naa ne amuloo benn jot parce que boobu nag ba tey yaa ngi ci eh, préparatif eh, deuxième édition nuit du boubou c'est ça dañ bàyyi nga nuyu ak xarit ci nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ba pare balaa ñuy faram-fàcce événement bi. Mm-hmm. Mm-hmm. di nuyu bi. Mm-hmm. nuyu Sénégalais mhm. fii sa kër la moom uh-huh. ñu ngi lay fay alors euh, nuyu du bu du bubu man dama ko mënul prononcer bu baax sax <laughs> euh, ren mooy deuxième édition bi euh, bi nga ko njëkkee def saa a plus d'un ah ñu gis ci euh, euh, gis ni événement la bu musul am Sénégal yàgg nañ fi gis ay euh, événement wu mode sama kii jiitu la ci def ci xeetu événement bu ne mais nga ñëw daaw ak loo xamante ni dafa dafa extraordinaire comment est née cette idée d'organiser la grande nuit du boubou bon c'est après ans d'expérience xam mhm. nga nag soo nekkee ci liggéey mhm. fukki at fukkat ak juróom mhm. ah war ngaa mën a taxaw nag mhm. te ñi nga xamante ne chaque jour ñu jóge feen na mhm. am tailleur yu bëri yu ñu romb di ñëw ci yow loolu rek jar na nga sargal leen wallaahi ba noppi nag man may liggéey ci li nga xamante ne ñun suñu aada la bu suñu aada la mais nag euh, dama ciy tukki. mooy ne danaa xëy jël soie def ko ci. jël dentelle def ko ci. lu nekk daal ma dugal ko ci. ay ñamatoos ko toogee <laughs> ñu ne nag euh, bon normalement il faut au moins deux défilés par année. Mhm, mhm. pour chaque styliste euh, loolu moo gën a normal. Mhm. mais nag euh, dafa am li nga xamante ne soo ko bëggee wane. il faut nga def spectacle. mooy ne mu dafa élégant. jigéen Sénégal dañoo élégante. donc boo buggee mbubb bi nga wane ko. soit ak ni mu rafetee ni muy ni may waxee toujours tombé bi. mooy buubu bi waaw nit bu solee yére yére war na mel ni war waraan ture waaw man bëgg naa ko waaw ci mbubb soo ko uh-huh. uh-huh. euh, il faut que xale yi dox beneen façon doxit uh-huh. bokkut ak défilé normal ok ok loolu tax na mm. ma def spectacle spectacle nag moo tax ma dem Grand Théâtre spectacle waaw mm-hmm. ndax mm-hmm. spectacle mooy ne dafa am du dox dem rek dox ñëw dafa am lu dafa am lu muy demee waaw dafa am lu ah, ci nag ma jël mbir mi def ko sous forme de def ay thèmes. Mm-hmm, mm-hmm. thèmes yi marié yi fii envolée de la soie fii delloo si fàttaliku démb. Mm-hmm. Ah, def cosaan. waa ndar fii ma xëcc leen indi leen. ndax indi ndeer waaw. Ah, loolu yëpp nag moo tax may def spectacle. d'accord d'accord ñu ngi may wax ni micro bi baaxul euh, c'est dommage que dañuy dañuy dañuy wàcce ndaanaan. man ak sama allure rek ak sama yu baax ay cat di ci dugg sax li caane di wax xanaa ñu obligé teg euh, TFM euh, euh, zap et puis ñu ñëw àggali waxtaan bi professeur il existe des liaisons qui mm-hmm. meurent aussitôt mm-hmm. nées mm-hmm. comme fondrait du beurre soleil <laughs> oui, j'ai envie d'en rire, comme vous dites, des liaisons qui naissent et meurent aussitôt comme beurre fondré au soleil. Oui, euh, c'est encore toujours le paradoxe. L'amour, on ne sait pas ce cherche dans l'amour. On investit de soi dans l'amour, mais on n'est pas toujours sûr de trouver un retour sur investissement de la part de l'autre. da ngay fëgg ci kër ne salaamaaleykum ana diw ñu ne mu ngi ci duus bi ñëpp xam ne diw a ngi ci duus bi buñ na diw a ngi ci duus bi fekk la yow ngay lekk kooku jóge ci duus bi ne la jàpp loxo. lu sax xel neex neex neex boo ko jabee loxo mu jàbb la loxo nga téye ñam ba sa xel dana dem ca fa mu jugee. léegi fii ñëpp ngi wax pétrole léegi loolu ngi génn mais xamoon nañu ni amoon na fi yàq nañu di ñuy ñuy ñuy utiliser euh, ñuy euh, jël euh, gaz gajaga di ko indi fii. du mm. tey ah wante visiblement yàlla dikk na itam. Eh, mën nañu yaakaar ni ci at yi ñëw. Sénégal dina gën naat su fekkee ni toppatoo nañu mbiru pétrole bi ni mu war. incha allah. cela veut dire simplement que dans l'amour c'est un soi qui se quête. mais ce soir ne peut se quêter et ne peut se retrouver qu'à travers autrui. Donc il des amours qui naissent de façon fulgurante et qui durent une éternité. Il est des amours qui réclament la même fulgurance au début, mais qui disparaissent aussitôt, comme vous avez dit, qui fondent comme beurre au soleil ou bien comme glace véritablement au soleil. Ça veut dire qu'en fait, on se cherchait à travers l'autre. Et en tant qu'on n'a pas pu se retrouver à travers l'autre, c'est pourquoi très vite durable sur un sentiment d'amour de l'autre, mais sur un sentiment d'amour de soi. Il y a, mon cher Khalifa, aussi regrettable que cela puisse paraître, des gens qui ne connaissent qu'une forme de l'amour, mais c'est l'amour de soi. bu ñu ko xoolee tey ji Léopold mi ngi bëmb ci biir bàmmeelam mhm. Abdou Diouf mi ngi socialiste maison boo xam ne Falaye Baldé yal na ko yàlla yërëm téye ko ñu moo bëree fay mu at moom Falaye Baldé yal na socialiste. te kon même palais benn sax war nañ fan sax benn monument tuddee ko mhm. ñu dem tey di fa def ab station di ko leen naan dañoo bëgg kii activité parti bi gis nga borom kër mu amatul mhm. yër kër mu tuddee soxneen mhm. an laa mi ñam gàtt maa mu démissionné l'état <laughs> c'est l'incarnation Eh. l'incarnation des hommes. amul leneen li nekk seen xol yi moo nekk ci xolu état bi. li nekk seen biir xol. dama ne li nekk ci état bi moo nekk ci nit ñi. débat bi débat bi débat bi. déclenché l'incarnation des hommes. merci papi Farba. man damay sant euh, Charles merci papi il a avoué. très bien affaire bi c'est pas politique doom bi. Pape non dama leen bëgg a wax. mais mais vous l'avez dit monsieur le ministre vous l'avez dit loolu laa doon wax man dama kontaan tey ci débat bi. Mm. di gërëm far ba ah. dafa wan Sénégal yëpp. a li leen tax a jóg. Mm. li leen tax a jóg mooy ndax Sénégal yi lëm seen xol taal réew mi ngir benn nit ko Karim Wade bu naan daa sàcc ak sàccut ñu ko ko tëj ko ñu ko tëj ñu bëgg a taal réew mi jaxase réew mi daaneel nguurug Macky Sall vous vous trompez. jërëjëf monsieur le premier ah, dem ban message dem di ngeen gisante waat xam naa bu ñëwee di ngeen téléphonante ci bàyyi rek yooyu fan ngeen ci toll woon yaak moom. man du xaar bu ñëw di ko téléphoné semaine bu nekk dinañ téléphoné. semaine moom ak man moom ak man semaine bu nekk dañuy téléphoné kon te bu ñëwee bu fi nekkee ñu téléphoné wala ñu dem gisante bu nekkee feneen ma téléphoné ko wala moom moom mu téléphoné ma. semaine bu nekk on est en contact semaine bu nekk lu tax moom sama xarit la man xaritam la sama benn la man benn la ci ñun ñaar benn lañu benn lañu benn lañu benn lañu. tey Sénégal mi ngi football ak euh, France. waaw euh, père may ñu benn. cinq secondes reportage. cinq secondes reportage waaw ñu toog rek. comme ni quatre parties. ñu naan ay coup sur la gauche. Eh, eh. Oumar Daf qui monte avec. Oumar Daf qui monte avec. El qui appelle sur la gauche. et ce sera avec deux saillies. Leboeuf qui s'offre. Mm-hmm. Pape Bouba dans l'axe et la Diouf qui résiste. au retour de la défense française, qui va centrer, Pabouba à la retombée du ballon, qui cafouille un peu le ballon, mais qui arrive à le pousser dans le but. C'est vrai que c'est un but de raccro, mais combien important pour l'avenir du Professeur, oui. il existe des, 9 h cinq ñu ngi jégalu bu baax ah, ci euh, euh, jafe-jafe yu ndaw yi am ay xeetu cat la rek ñu ngi doon waxtaan sànq ak euh, Thiané Diagne dinañu wax léegi ci sargal bi ñu ko sargal bu yàggul parmi jigéen yi ñu gën a respecté ci àddina mu yàgg sigil drapeau bu Sénégal yàgg sigil jigéenu Afrique mu toll nag ci deuxième édition nuyu du bubu ñu ngi ci doon waxtaan léegi nii événement bi ak solos ak solos événement bi. waaw Pape li ma la doon wax sànq. mooy ñuy du bu nekk te li nga xam ne li tax ma koy def tous les deux ans. Mhm. ndax euh, fi mu toll. Mhm. li ciy xew yëpp. moo mhm. ne lépp loo xamante ne moo bokk ci taaru sénégalaise. dañ ko ciy wone. lépp loo xam ne moo tax ñu naan jongamay sénégalaise fu mu dem. jël Afrique foo dem fekk fa ab sénégalaise bu daagoo ñu xam ne kii sénégalaise la loolu lañ ciy wane mu nekk loo xamante ne liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def depuis presque maintenant dix-sept ans yàgg na donc fa tabaarakallaa chaque euh, nuit du boubou mhm. ñu wane ko mhm. sargal jigéen ñi mhm. fàttaliku démb ndaxte euh, cosaan da nga koy fàttaliku euh, li jigéen ñi nekkee woon ci suñuy maam yi di ko fàttaliku dafa baax da nga bëgg indi talaatay de waaw ndax <laughs> dama dama dama dem Genève ñu jox ma fa raaya ñu def ñu nag ay ambassadrice am message bu ñu bëgg ñu lancer ka mhm. message boobu méngoo ak message yu francophonie mhm. muy benn mhm. jigéen moom dara du dem san jigéen ma daal di thème bi mhm. ne les femmes à l'honneur mhm, mhm. bu ñu nee les femmes à l'honneur nag def naa jigéen ñu ndeer ñoo ko njëkk a def dëgg la dëgg la dëgg la donc loolu jar na fàttaliku pour xam rek ne xëy na démb ñoom loolu la ñu gisoon pour xeex pour wane seen jàmbaar tey ji xëy na ñun am nañu yeneen façon yu ñu wanee suñu jàmbaar waaw ma ngoog ma ngoog ma ngoog mooy ni ngay xeexee alors yow am nga am nga benn particularité boo xamante ni ak koo mënti doon yére euh, Thiané Diagne foo ko gisee xàmmee ko lan mooy sa secret ah secret bi nag Pape mooy créativité. Mhm. gis nga styliste. Mhm. il faut muy créer ba noppi nag Pape man li may créer maa koy dagg. daggal sa bopp. man maay taxaw di dagg di imaginer di dagg. Mhm. donc euh, nit ki même bu copier modèle bi. mais xam nga li may sentir ba may dagg ak ni ma koy ubbee. loolu mënut a nekk. déedéet déedéet leen loolu waaye. <laughs> et je vois je vois Père Idi Diop il est tout content parce que moom euh, li ñuy wax sànq ci ñi bëgg seen réew moom daf cee bokk euh, am na kër France euh, am na kayit France. Euh, am na ay relation yu baax France euh, waxatuma président wu France rek waaye képp kuy artiste ci àddina xaritam nga moom moom bokk na ci ñi teel a bàyyi euh, France ne man li ma intéressé mooy sama dëkk donc boo gisee ku mel ni Thiané Diagne di jigéen doon jàmbaar di siggil drapeau Sénégal à travers liggéeyam da nga ciy kontaan et yaa ngi wengal ah, ah, gis naa ah. wengal bi père <laughs> Pape Pape Pape Cheikh mën a tooñ. Euh, non maa ngi lay sargal di sargal ñëpp ñi fi toog ñëpp. jërëjëf di sargal waa Sénégal yëpp. et puis euh, di kontaan ci yow. jërëjëf vraiment liggéey bi ngay def c' est euh, c' magnifique parce que li ngay woy utile ak. Euh, agréable agréable da nga koy wane. parce que y' a beaucoup d'humour y' a beaucoup d' amour ci li ngay def. man c' chaque fois quand je je regarde ton émission Yeewu je suis fier d'être sénégalais parce que vraiment yaa ngi yaa ngi dugal ay affaire ci biir yu yu rafet donc Thiané c'est c'est euh, c'est c'est une femme exceptionnelle parce que nga dem ba bitim réew ñu jox la fa raaya déjà bu toll noonu bu toll noonu euh, d'habitude dañu ko jox sax africaine absolument ah, bu ah. kooku c'est important et ce qui veut dire que Sénégal fii am nañu euh, dara lu fi nekk dama lay nettali benn affaire gis nga dama toog États-Unis ma toog ak Quincy Jones. mooy producteur u Michael Jackson. Mm-hmm. su ma xaritu benn bakken la. mu ne ma mu ne ma xam nga li ma gën a intéressé. Mm-hmm. ci Afrique. mooy said loud I am black and proud. Mm-hmm. waaw xam nga point boobu. waa jooju levé woon dans les années années yu jëkk yooyu noonu. ba Hitler taxawee. mu jël premier Hitler bañ koo nuyu. mu ne mu téye loxo bi def ko nii. said loud and black and proud. ma ne ko man loolu moo mooy dellu si Afrique parce que ñun Afrique rek la ñu am. donc je suis fier vraiment aujourd'hui de de Tiané et euh, de toute la jeunesse la tout le Sénégal man Sénégal daf ma daf ma émouvoir quoi dëkk bi waaw waaw waaw c'est important mais jërëjëf ci li ngay def rafet na trop. alors euh, ren lan particularité nuyu di Boubou. waaw particularité bi nag ren mooy li ma la wax mooy ne femme de Nder mm-hmm. lañuy sargal euh, à travers ça ñuy sargal ñëpp ñi nga xamante ne mm-hmm. ñoo daan euh, bañ mm-hmm. depuis maam ya te loolu dafa am solo euh, buñ ci jógee nag daal di dugg ci li nga xam ne nag moo neex euh, jigéen Sénégal mooy ne lépp luy sañse xam nga nag Pape suñu nee sañse moom téye sa chéquier rek te taxaw waaw kese <laughs> waaw léegi su ko defee tamit ñëpp téye seen chéquier yi taxaw ndax lépp loo xamante ne mooy euh, tissu de haut de gamme dinañ ko jël def ci ay mbubu mhm. def ci nag xeetu mbubu yoo xamante ne fu la neex sol ko mhm. bu la neexee dox ci festival de Cannes. Mm-hmm. te kenn du la ree kenn du la wax dara ndax qualité tissu yi nga xam ne ñoom moom la ñuy sol. li ngay def ci soie amul loolu la ñuy liggéey. Uh-huh. waaw def ko mu rafet ak am nag surprise bi ci biir nag waaye Pape Cheikh surprise. su ma ko waxee <laughs> eh? dootul nekk surprise dootul nekk surprise. ba noppi nag euh, mu am benn particularité si biir mooy ne. Euh, ren euh, Collé Ardo. Mhm. dama ko fas yéene sargal. sargal mhm. muy euh, lu rëy si man. elle waaw xam nga Juma Jaxate mhm. mooy marraine événement bi. événement bi ci boppam muy du bubu moom mooy marraine bi. du nu benn at. moom mooy marraine événement bi. bi depuis waaw. mais euh, at bu nekk damay am ku may sargal. Mhm, euh, ñoom su fekkee ne ñun tey ñeme nañu ñoom ñoo xàll yoon. wallaahi ku ñeme sax dañu kon nag am na li nga xamante ne boo ko deful ca mhm. dëgg-dëgg. Mhm. ah war ngaa seetaat sa bopp. dëgg la boo mënee dugg ci biir Afrique. foo dem ñu ne la bubu. ñoom ñoo fa aw ba tax ñun suñu demee ñu reconnaître ñu kon loolu dafa jar ñu sargal leen muy loo xam ne lu ma lu sori ci man la mhm. waaw voilà euh, xam naa ne amuloo benn jot mais événement bi le 6 la bu soobee yàlla incha allah di ngeen ko mën a seetaan en direct ci télévision Futur Média euh, euh, billet yeeg nit ñaa ngi sonal nit ñi nan laay def ba am invitation nan laay def ba am billet comment faire billet yi waaw jàppale ñu incha allah billet yi jour ji lañ koy jaayee dix mille la VIP vingt mille amiin invitation yi tamit ñu ko war a jox dinañ leen ko jox. d'accord euh, na ci ñëpp jàpp. mais bien yaa ngi disponible actuellement. jour ci à partir de lundi. à partir de lundi lay disponible lay disponible. mais nit ñaa ngi réservé. d'accord d'accord réservé leen. wa wa moo gën a wóor numéro baa ngi ci euh, publicité bi. man dama ko fàtte waaw waaw 33 867. 80 80. 77 867 80 80. 33. 867 80 80. 77 867 80 80. teel a am place. mën a teel a waaw moo gën a waaw ñu ngi lay gërëm. incha allah merci d'être passé nous merci Pape xam naa ni euh, dafa defaral nga ko <laughs> Pape bàyyi ba mu merci ñu ngi lay gërëm. merci beaucoup gërëm bu baax kon événement ba ngoog le 6 la incha allah. ca euh, Grand Théâtre di ngeen ko mën a seetaan en direct euh, ci télévision Futur Média balaa may rejoindre euh, Père Idi bay wax ci actuellement yi def buzz ci internet bokk na ci vidéo bi nga xamante ni jaaxal na képp kuy wayjur ku wayjuram bàyyi woon ci këram ay doom doomam la bay ci kër gi jànk bi da koo ndullee ndulli ndulli ndulli ndulli ndulli alors mu jaral ñu def ci ab taxaw seetlu tey